jël jëf jàngeen jëf mbokki internet mi nga xamante ni bi rekk sa su ne yéen ñuy safoo du ñu ndamoo du ñu tiitaroo du ñu seetaan à travers TMS TV mu nekk nag mbégte ak contentement ci taaxiroo bi ngeen di taaxiroo du ñu seetaan à travers TMS TV amee yi yéen a ngi seetaanaat seen émission bile di Actunet mu nekk nag émission bi nga xamante ni spécialement wàllum li commentaire lay jëmale ci ku muy jëmale nag ci ki nga xamante ni bi rek muy may muy bàyyu sëriñ si di the king of the King ku li médecin traditionnel du monde di Thierno Moule Sow waaye nag amee internet yi ñoo ngi leen di euh, laataan ñuy dugg ci yooyu yooyule lire commentaire ak yooyu yooyule coppite dañuy daal di jaajëfal jox wàccuwaay ki nga xamante ni bi rek moo nekk kilifa kër gi mu nekk Thierno Moule Sow nekk the King of the King ku médecin traditionnel du monde jox wàccuwaay itam euh, ñi nga xamante ni bi rek ñoo bàyyi ko fii ci la TMS TV mu nekk journaliste yeeg caméraman yi ak CRA 221 ma nekk nag li nga xamante ni bi rek sa su ne duñ ko taay di ko di ko wax waaye itam duñu bokk duñu fàtte nag itam euh, suñu mbokk yi euh, internet yi nga xamante ni bi rek sa su dañuy tiituru euh, di ñu ndamoo ba tax ni rek ñu ngi leen di nuyu di leen ziar jox leen seen wàccuwaay bu baax a baax waaye ami internet yi nee naa leen fii la mburub di xoyom xoyomee fii lay tàngee itam fii lay seddee waaye nag dañuy tàmbalee li nga xamante ni bi rek moo ñu soxal euh, ñu daal di sélectionné ay vidéo yi nga xamante ni vidéo yu doy la ba tax ne nag ñuy daal di euh, sélectionné ci yooyu les vidéos yi nga xamante ni dañ koy diffuser à travers TMS TV ñu daal di sélectionné bi les euh, vidéo bi nga xamante ni mu ngi porté rek ci après première première séance de guérison dispute Thierno Moule Sow a terrassé Djinn euh, ci boobule video ñu gis ko ci mel ni Anta Gueye ant Gueye nag euh, nee na euh, tu as montré tu as trouvé aussi kenn du yow Thierno Moule Sow itam ñu gis ku ci mel ni Amadou Ousmane euh, Guèye moom itam nee na macha allah Thierno Moule Sow jinne bi dafa dëgër bopp franchement doy na waar itam ñu gis ku ci mel ni Maguita Ndiaye Maguita Ndiaye nee na chaque jour yaa ngi ñuy euh, wan di ñu prouver sa njàmbaar macha allah soo pour le euh, itam ñu gis ku ci mel ni Ndeye Sali ne moom tamit nee na asalaamaaleykum Adja Mariama kamara ñu ngi ziar bu wér di kontaan si suñu doom ji yàlla na la yàlla fay itam ñu gis ko ci mel ni Matem euh, Zara Massali moom itam nee na histoire famille yu bëri moo commencé feeñ à travers les dîners et le travail ku Thierno Moule Sow euh, fait tuy loolu nag itam ñu gis ko ci mel ni euh, jigéen ndiir jigéen ndiir nag moom itam nee na billaahi ki mënula fay ndax jinne bi dafa dëgër bopp trop macha allah soo Euh, yàlla na la yàlla fay bàyyi ba nga jàppale ndaw ñi nit ñi sonn nañ euh, itam ku ci mel ni abdu Ndiaye nee na macha allah le maréchal the king of the king pour les du monde tu es le il va rester maintenant parce que ce qu'il a subi ici il l'a jamais subi d'ailleurs itam ñu gis euh, Amadou Moustapha Mbodj moom itam nee na buy jéem yàqal kuy jéem yàqal nit yàqaloo ko danga koy defar ay mbiram euh, soxor baaxul iñaan baaxul raxas leen xool yi euh, ami internet yi dañuy daal di stoppé rek xaar xool euh, bi nga xamante ni li nga xamante ni bi rek moo nekk vidéo yooyu yi nga xamante ni dañuy def wàllum illustration fii ci la TMS TV fii ci kër Thierno Moule Sow ay ca ñu teewle bi les reportages. maa lay ziar. ñu am jàmm. di sant borom Touba bu baax. alors tur bi sant bi ak fan nga jóge tur bi nag Cheikh Diouf la. ay jóge Espagne. alors ñu buggoon xam sa tànk lan la fii ci kër gi. Thierno dañ ko daan suivre depuis Espagne sama soxna nag moo ko daan suivre. di ci topp benn jour mu moo ko seetaanloo bon mu ne ma nag bon comme yàgg nga dem Sénégal fu ne nga fa daan dugg di génn man daal kii moo gën a dal sama xel daal mu wax ma loolu. moom soxna si. ma ne ko ah dañoo essayé ba xam mais maa ngi fi mais xaw ma lu ma téye bu mënu maa ñëw damaa fépp nu ñëw fii foog mu ñëw ma yor ma ñàkk yor naa ñëw rek ba xam yëf yi nan la demee ak condition yi nan la demee waaw bu ma bëggee mënee dimbali mu dimbali ma. mooy sëñ bi daal fi indi suñu ko gàttal dañ koy faral di seetaan foofu rek man mi sama ko doon faral di seetaan waaw ba sama suñu waa di ma ko tooñee. waaw di ma ko tooñee. tey ma kii ñu ne ma yow da ngaa gëm kii da nga ko gëm man ko dama boo gisee ma gëm ko dama ko tàmm di ko seetaan chaque jour waaw te lu ne fàng moom kenn di ko jeex xam naa li bu doon politique boo bële bu ma koy seetaan ba léegi xëy na ma ñaaw si njortu waaye boo gisee ma sax si di ko seetaan dama see am confiance waa léegi ma faral di ko seetaan ba waa kër gi dem sa ba mujjantal bi sax ñoom ñoo ko gën a bëgg waaw muy sama jëkkër ji xanaa di ko ñaanal rek yàlla bàyyi ko fi bu si kanam muy yàgg di faj aaju nit ñi képp ku jaaxle ba ñëw fii daal yàlla yàlla faj sa aajo loolu daal laa koy ñaanal gudd fi laa wér gu yaram

itam ñu gis euh, Mané El Hadji moom itam nee na Thierno Moule Sow man Ziguinchor laa nekk mais fii daa am euh, benn jinne bu ñuy wax Maymuna mu ngi fii di euh, di rajaxe rek dama bëgg nga nga nga nga nga téye ko itam ñu gis ko ci mel ni Mariam sàmb nee na lii dafa leer xanaa di jommal noon yi rek mais toujours preuve waaye nag amee internet yi kontaan rek ci yéen ngi si seetaan bi ngeen ñu seytaan xanaa kay dañ leen di jox di daje ci yeneen i jotaay émission Actu Net